trois espoirs. contentement ak mbégte laayam di jënd ak yéen chaque jour rawatina ñi topp seen làmb internet yi national ak international di leen bu baax waaye am contentement jënd ak yéen olof Ndiaye dafa ne nag ku fóotal mbëtt rocci bar damaa demoon ci xale bu Darifor bi waxtaan ak moom. mu sànni ay kàddu waaye jëmale ko ki nga xamante ne nii mooy ndigal mu ne ki nga xamante ne ndigal bu ko mayee sansam neewu sax may ko sans nee na moom ndigal moromam la dañoo war a bëri na ko may sans ñi bëri mu daal di koy daan loolu nag xam nga ne su ko kaa waxee foog ma dem fekk ndigal laaj ko moom naka la gisee propos kaa gu doy waaye laata loolu dama koy nuyu ndax dañoo fekk salle muy entraîné day doggali wala day waaja a benn avance wala dafa jël benn avance avant tout ndigal nuyu naa la waaw Ndeye maa ngi lay fay maa ngi sa caméraman bi naawul bi di nuyu site bi yàlla dogal mu bokk si li gën a mag Sénégal di nuyu waa salle bi ma fekk di nuyu ko su Abu ak Ibou su ma ñu samay xarit quoi parce que heure bi heure wàcc la mais damay xaar la ñu toog di ma xaar quoi. di nuyu waa cité gi ma dëkk nuyu suma waa koñ yëpp nuyu waa Gueule ma fekk nii ñu ay jàmbaar si sama ginnaaw quoi ñun ne sama papa Alain Ndiaye bu baax di ko ñaan yàlla guddal fanam ak suma yaay Khoudia Diop suma grand frère ñoom Aziz Ndiaye ñoom ñëpp maa ngi ay baay Masata maa ngi leen ziar bu baax baax di nuyu sama père Diaw bu baax comme nu ma taayee di ko wax wax mooy lam de géejawaay nga bépp mbër bu nekk géejaay saa yu combat yi jaxasoo père fay taxaw jaar fa yàlla def sutura mu ngi koy ziar bu baax a baax di nuyu nag suma famille yëpp tout di nuyu suma benn xay démb dama demoon Touba sama benn xay la doomam wàññeeku sëñ Saliou borom xel ko borom pàkku làmbaay maa ngi koy masawu bu baax a baax di ko ñaan suñu borom andi ko leneen lu gën te bàyyi ko fi. di nuyu xaritam Dame Dame Ngom am ma fayam ak ñoom Modou Ngom waa Pàcc Lambaay yëpp maa ngi leen ak waa Pàcc Papa Gueye Fall waaw maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp. ginnaaw di gis mbër moom su daanee day dem daal di noppalu seeti ay mboqam yow nga daan nekkaat ci entraînement yi jóge di ñëw sa lan la. waaw xam nga combat bi ma daan combat relancement la waxoon naa ko bu dee woon sama morom koo xam ne maa ko mag ci làmb laa doon jàpp ne maa ko daawul mën a wane rek wane naa ko nag léegi na lees mooy jëflanteeg samay morom moo tax te xam naa ne gëj naa bëre bëri naa am na lu ma si jàngee ma ne foog ma dem renforcer jiwaat tamit pour bañ a xaar parce que géej waay dañ ma sas ndax ku toog ay 3 ans bëri woo ko rek bi may bëree ni ñu génnee ñoo ma sasaat ñoo tax ma gën a góorgóorluwaat pour takku dem fas yéene liggéey quoi. avance hmm. yi ñu ngi ñëw wala promoteur yi ci ban combat lañ di def mu ne non depuis boobaak léegi moom wax dëgg yàlla chaque jour promoteur dina ma mais nag déggoo si cachet adversaire tamit même chose parce que tamit man du ma jaayante nekk saako bi gëj a bëri ñëw sacrifier xool xale bi gën a nekk en top si xale yi nga xale yëpp nii di fël mooy seen kilifa muy Sako Balde maa ngi koy nuyu en passage ma jël ko daan ko di taxaw di xoolaat beneen xale ko est-ce que nga may xale sens comme ni nga gëj a nga ñëwaat. ñëwaat ñëw ci course bi ñëw naa ki ki mën ci xale yi laa daan su ne si mag ngi laa jëmaat ki mën ci xale yi laa daan seen patron ñoom ñëpp laa daan mooy yéeg ci kaw xaar magi ñu ma la sens wala ngay may booy sens question bu la waaw may sens quoi man soxla ma ay combat néew yooyu quoi man samay morom laa bëgg a bëri si bëri dañu am combat damay xaar langi daal langi tas rek ñu jëflante quoi. ba xaar wóor na. si parce que combat fu kan moo amul combat ku bari na non man xam ma si kenn wax dëgg yàlla ma xam ñu war a bëri ñëpp ñu ngi si ay contrat kon la li nga mën mooy xaar décembre janvier combat yi tas nga jéem a xool si vainqueur yi nga jël si quoi. am na koo xam ne jibi barki démb laa ko jëli moom ba ma demee tudd na ay mbër yeneen mbër waaye moom ndigal la gën a dut baaraam ne jox leen ma ndigal ma daan ko muy Kaaw Gourdin xale Dalifor bi. Kaaw Gourdin. Kaaw Gourdin Dalifor la dëkk xamoo Dalifor. Ah, mooy booy bi doon bëri si kalaaf ñoom Ousmane Diop Thiat Dodo Fall. daan Thiat Dodo Fall daan Baye Mandiaye dugg Guédiawaye ñaari yoon. waaw mais loolu wërsëgam la mais tey jii ku mel ne Thiat Dodo Fall làmb ji benn moroom mënu ko fi na xale boo nekkee fi niveau bi mu confiance bu bëri moo ko sonal rek mais Thiatou Daouda Fall moo mën fukki xale boobu. Hmm? man xam naa si dara quoi waxantu ma nag pour wax ay minimiser yooyu mais Thiatou Daouda Fall wallaahi moo mën fukki kaw góor te kaw góor dee daan ko. waaw mais làmb da nga siy man nit daan naa mu mën ko wallaahi yaa seen Thiatou moo te làmb a ngi fi mi ngi fi mu ngi fi làmb mën na leen a boolewaat. nee nañ. Jacob Balde moo mën ndigal te ndigal ko daan nangu nga loolu. non non Jacob mënu maa mën. ci ah, moo tax nga bëgg nga bëgg Thiatou Daouda Fall mën mën kaw góor nañu waxtaan tamit. xam bëre. fi ma jaar ci làmb ko xam bëri xam nga sa ko maa ko mën Thiat Daouda Fall bërki dem ko maa Youssou Ndour bi dafa moo ni mu respecté Youssou Ndour su ko woon euh, booy du am dara mais confiance dafa garaaw nga ne xale ñëpp ne coow boo amul tuuti kii rek mën nga def erreur mais erreur boobu moo ko jàngal quoi moo koy def mbër. moo ko yee moo ko yee de confiance baaxul parce que benn booy lu ñu wax dëgg chaque instant da ngay dégg yaa ko mën yaa ko mën nit ki nag pour man fii daanoo ko mënoo ko. même boo ko mënee te daanoo ko mënoo ko man loolu laa wax sax sa kopp maa ko mën mais maa ko mën gi si écran yi lay mën mais su ma toogee sama ruq bee damay xam ne ko ndax ko mën entraînement moom salaamaaleykum Kaw Gourdin xam nga man mënuma jaabante bi di dem ci kër Kaw di ñëw ci ndigal te tungu du teew ñi nataal Kaw waa saytaane laa jërëjëf ndigal a ngi nii nee xamul kuy Kaw nuyu ko xëy dina la xam nuyu naa la Eh, Père Ndigal naka mu. Kaaw naka mu ça va. yaa ngi si jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax. lay bëggee. lépp naa si. sant bu baax a baax. alhamdulilah. Ndigal arñe na de maa bëgg mbër buy arñe. ah. naka ñu ngi si kaw baax ñu ngi si kaw. Ndigal kaa de da nga ko attaqué. démb mu ah. xëy dem din ñëw saal te ngoon day dem écurie neen day daabal nee na yaay kan booy boobu mooy kan te yaa ko dëkk woon na lu waaye waxoon na te delloo Ndigal a ngi nii yaa ngi nii. di di laajte Kaw Gourdin mooy kan moom mu yàq sa wax la. Oh. moom moo la gën a xam loolu ndigal yow yaa ma gën a bi nga ngay daan tey daanu ginnaaw suba jël ku ne si kaw tourné jël ku ne suuf yow yaa mbër boobu moom loola du kooku. waaw booy boobu la parce booy boobu dalaa bëgg daan. non mënoo daan. boo ko jëlee euh, dëkk. Dalifor la dëkk. wala Dalifor góor daan yow. ndigal. tey tey attention te soo ma waxatee père billaahi dama lay pelent xamal tax yow 2007. waaw bi may nekk daara ja billaahi wallaahi taalaahi sama benn gala ne 2007 la commencé bëri mbapat te boobu maa ngi xel comme di jàng. kon tey boo fi nekkee 2007 ba léegi mënoo fee nekk booy bëgg fee nekk booy ba tey yow paa nga yow làmb ji Bombardier ak Eumeu Sène ñoo la fi mag. nañ njëkk a déglu ma eh déglul waa déglul déglu ma daaneel non théâtre ma de billaahi wallaahi billaahi laaw billaahi billaahi laaw billaahi 2007 la commencé bëri mbapat moom mii. 2009 xaw ma 2000 toog naa am na ko ne ma toog na seetaan ko arène muy bëri kii booy bi. non mag la non yàgg bëri amul ndax xale bi ko bàyyi muy bëri. waaw déglu ma daaneel déglu ma daaneel da ngay déglu ma daaneel yow ma yaay déglu. est-ce que yaa ngi dégg kon na njëkk tey na ma d'accord naa man yow nangu naa mag soo ma waxatee yaa père ma plainte la. parce que magum jëm mu toll yow sama papa papa bu toll yow ne fi di père di gone gone la yow kaw soo sa yaram sa muscle yooyu xam ne yow doo gone sa yaram dafa muus da ngay déglu ma kalaaf bi nga bokkoon mag nga leen daane mais booyee la ëpp doole mais xelum mag nga leen jaay soo ne ma père nag dinaa la plainte lu leer laa lay tegal booy nay euh, euh, euh, mbàkk dama koy plainte kii kii moom kii nangu na kii mag kii de billaay lamb ji ëmb seen ko fi mag Bombardier man maa la ah, ko wax yaa mag Modou Lo yaa mag Balla Gaye 2007 ah, mi ngi bëree mbabat 2007 yaa ngi bëree mbabat waxal nga dem sa bëree mbapat alal jëm alal jëm nga daan fa benn boobu ne ko école Balla Gaye fàllu dëkk léegi mi ngi refan non ba mbapat la boobu booy séeréer la mooy si séeréer kii non amoo capacité amoo doole bi amoo calcul bi amoo xam-xam bi dañu nag dañu nag làmb daa baax waaw da ngay déglu da ngay déglu sa patron Jacob Baldé laa daan ndax combat bi dégg naa si ñu ngemb Jacob la bokk moom mii ñëw tribune toog di di talaxo di nga am xool tribune la toog dégg naa naan Jacob ko jàppee làmb ji jeex ma daan Jacob da ngay vengé wu da ngay vengé wu yow non yow moom xaalis sama mën a booleeg yow ndax instant soxla boo ko sama plan de carrière ne ma tëral ma combat yu mag yi su ma si amunta am na si yu mag yi ma bëgg niveau bi yu tari yu safi waaw koy kuy may chance lu muy wër di laajte yaay may chance man maa xew non yàlla mooy dogal lool gis nga jamono ñëg la see xew ma non moo fa ni benn mais yàlla moo dogal man ma xew kon waa léegi damay waxtaan xam nga kii du neex a du neex a dimbali du neex a boo ko bëggee boo ko bëggee ay qualité

kii daa xam benn kale bëri la défendre nga ñëw juumu bëtt la daan ndax la kese. wallaay Azim bu jëlee combat ma def ko noonu daan. non non mënoo maa daan kaw mënoo ma yow bi ñoo judd ku ma daan juddu si. waaw déggoo la wala ndigal yow paa nga. xamoo ni ñuy daan yow eh, dama koy pelante 2007 yaa ngi bëree ba pare nga ne fi naan ba bàyyi leen caaxaan seen at yi ngeen wàññi ba yow ku la xool xam ne maam nga. 2000. 2000 non 2007 la non 2007 la. 2007 la. léegi yéen yow yow ndigal pare nga pour bëri kaw wala. dama dul morom dafa dugg géej waay ñaari a joomal nit ñi billaay dama dul morom Lat Joor nga koy xaar Lat bu daanee combat bi Lat na ko jël daan ko. da koy jéem a xam da ngay dugg YouTube nga tàppee Lat Joor dina la ko wan. boo tàppee Lat Joor man du ma sama moom cat doo defaat bi nga daanoo dafa juum te tàng suuf jaan suuf yàgg yàgg di ngeen daje dina dina fay. soo bëggee ku la dimbali nag da ngay saraxu ñu dimbali la mais soo waxee waxi morom man du sa morom ba lay jël soo ñaanee nag soo sàkkoon dimbal mën na laa dimbali mais bu fekkee da ngay jaay imposement ak seego mënoo koo bëreeg man. man li may jot du pour yéen boy pour pour pour bëgg laa daan yow pour bëgg laa daan. waaw. ah pour bëgg laa daan. waaw bu nekkee saroxu mooy tax ma daan la boo saroxoon nag direct barki Seydina ma ma woote la parce man nee naa gumba laa yor xàmmee ma biñ bojj ak biñ boxam yéen ñi nga yaakaar yi nga tey yéen nga neex a daan ndax Saka ki dem bi nga toogee isal la nga wax lépp yëg naa agsi na si man hmm? moom mii ne naan déggante nañu audio bari ki demb Saka ba ko man bu ko jàppee sa sëriñ bi nga boole mu seetal la su leen seetal ma boole noq yéen ñaar déggoo ma de dama ne da jàppale nga ne si combat bi ba ba mu daanu ngay da ngaa jël relève boo ñëwee ma boole noq yéen ñaar daal di dama dul sa morom nag dama dul sa morom ay ay ba xamoo lu ma doon ma ne xamoo lu ma doon sa yoon nekku si li ma doon yow. combat bi concerné wu la dinañ ko na ma. combat na mujj naa nekk face to face yéen bu ko bu ndigal bu ko Jacob jàppee combat bu mënta di ndigal mënta bëre cinq minutes. bu ko nekkul ci stade bi suba. si kaw ma ne gisuma ko billaay mi ngi kaw billaay mu ci taree ba ba ma defalal sa ko daa gaaw jéggi daw gisuma fa kaa kaw man man ngay waxal barki Seydina ma mi ngi ci kaw samay raq la toogal xamu si dara di wax rek lu ne moo ko fa naan eh, eh, déggante naa moom ay audio def naa lii nañ bàyyi coggu beeg ŋaamu beeg yi nañ mu fi nga dëkk ngir làmb ji maanaam xam nga sa ko balde kaaw gure làmb ju neex la nga fexe ba bëgg nekk xëccu xarit xëccu gaayno kañ la ñuy bëri moo tax ñu am problème adversaire man ndigal nag euh, malheureusement xaritoo maa kenn am ak mbokk kenn te wallaahi su ma amoon mbokk beneen écurie suñ ma fay ma bëri moom man digal man loolu sama philosophie bopp la. sa sa diggu damay liggéey te làmb sport la comme tey jii ni Siteu ak Goltap bi nekk ay mbokk doomu ndey te bu nawetaan amee dañuy fubal kon foog gars yi di bëri te bàyyi xaritoo gi saka euh, kii kaw gu rëy gëmal sa bopp nga dem topp saka balle mais di ko cogg sa patron sa patron mënu ma daan di tourné di bëri ak yow naa bëgg nga yem dégg naa muy jàll ba si ay Balla Gaye naa xaw ma Balla Gaye gourdin xaw ma eh. moom dafa am gourdin bu ñu koy delloo dafa am gourdin te booy bi sax xaar rek dinaa jur si ay mbiram quoi da nga koy rek on parce que booy yi dañoo yabaate kon nañuy jàpp ne instant yi mooy loolu man ba ñu ma fee taxaw staba fi ma sta noq booy yëpp soog jàll si kaw ah, déet foo meree nag laa tegal parce que booy yi li ñu yaakaar amul barki Seydina li may daj ñi muñ ko sax li may joob du pour ñoom billaahi wallaahi man sama bët maa nga teg si Boy Niang daanu si Balla Gaye ma jël ko man loolu mooy sama def instant bi mais pas ay ay ay ay ay ay kaw kaw ko def fu yóbbu billaahi wallaahi duñu def minute kii li muy bëree dafa petit si man di wëreelu yow kii raa lu ñëw da koo daan maanaam un ziga xumma deux ziga kële euh, yankaaw cat daw defal la daan si ak Baye Mandiaye te dañoo juum billaahi dañoo juum ñoo ko mën foofu wallaahi dañoo juum te dina dina si xam dara xam nga mais nag bu dee yaakaar daa dugg géej dégg naa mu jàll eh, Alioune Seye 2 Alioune Seye 2 du moroom baayam la na yem Alioune Seye 2 la na yem xam nga comme na dañoo fa nekk di dépassé Thiat Daouda Fall moo ma tooñ ndax su daloon moo mën kii junni yoon mais nag xale la juum kii daan ko mais la ci kanam rawul bët xale màgg na. ay tax ñu ngi ñëw ci premier décembre wala premier janvier autant pour moi diggante Balla Gaye 2 ak Boy Niang wàccaay géej waay fu mu toll. pare nañ li ma waxoon laay waxaat wax naa fu ne ñu ne da ngaa bari wax waaye tey laa koy gën a wax bàyyi la gay bàyyi booy ñaay la moo ko mën ci bëre. xanaa ñëpp ay bàyyi la nekk bàyyi Ama Baldé bàyyi ku ne ngeen bàyyee bàyyi daal xanaa ay bàyyi. non man du ma bàyyi Ama Baldé Jacob laay bàyyam ndax Ama Baldé suma xarit la suma moroom la man li may wax dafa leer mais booy ñaay si bëre Balla Gaye bàyyam la te moo ko dàq bëre aller ak retour te bu na ko jàngal. gisuma ko Balla Gaye gis naa li mu jàpp naa ko xam naa ko doy na ma te ñeme naa seete suñu kër. sa kër. làmb ji ñeme naa seete kër suñu kër li ngeen am de. dama ne làmb ji ñeme kër sama avenir sama vie ñeme naa kaa teg si làmb ji. Balla Gaye du ñeexu ñebe saa gis nga ni ngeen di gis nga man mii man mii nga xam ne bëri bi may def nii muy jaaxal nit ñi Balla Gaye day bëri bi may wër te man maa jommal gone yëpp man ndoxtu bëri laa yor boo xam xamante ni nu ma neex laa koy bëndee su ma ñëwee gone yi mën naa tëjee ak ñoom bëri 20 minutes si stade bi benn góor def benn kale. ndigal nag Jacob Jacob yey nañu instant bi ndigal kenn du dégg ndax ndigal. allahu akbar Jacob champion la billaahi bu yàlla bu ko ca topp Jacob Baldé mais Jacob li ma indil gone gu ko indil duma ko mais xeeti ndoxtu bëre bi ma yor ak xeeti wërwërloo gi ma lay wërloo si bi bëre sooy juum ma lay rey. voilà léegi nag léegi nag bëre boobu nag Balla Gaye si ni ñu ko roytee ñun te dafaa desal lu bari moo tax boo ñaan li mu foog amul na bu baax. gis naa ko nag mun naan ay dina wel yokk lexam yooyu ñoo di sonal nit ñi barke rasul li ngeen foog làmb boo ñaa bu jeexal daal moo fay jeexal bu ma la laajee moom mooy bàyyi waxul dëgg waxul dëgg man ko wax Goro moo boo ñaa dëgg du dox ci kaw nit tàppel la ku dox ci kaw boo ñaa dox ci kaw jos waxul dëgg day naxante boobu dafa juum yoon a nax Balla Gaye mais Balla Gaye ma comme jëm man lañ mënta nax waxuma laa moom mi suñu patron nekk fi sax pour ñu koy nax naxante saa lamb ji jëf la te boo ñaa daa pare bu ko mën ta a dóor mën a moytu daa ma gis ñaa mu jëlee ko de moytu koy mooy lan daw yar yar yar tafaatin ji xanaa gisoo self défense moo tafaatin li mu def mooy daw ba saako yi sa loxo bi génn boobu daa damoon moom boo ñaa ko moo tax yax yi dëgërut moom xale bu ndaw sa combat sa tànk damm waa sama baaraam bi soo xëyee escorte sa yaram bi di sonal nit ñi nag góorgóor dëggal ba ma xale la Zaka Bale kooku la mu def mooy yëfi góor ñëw dëggal ba sama kaw tànc ma saako yi 19 minutes ñu gérer ko waaw may ma ñëw rek indi sama jom ju mët sëkk taxaw boo ñaa gis na da ngay am jom mais saako yi du pour day daw di génn Zaka bi ma bëggee génn damaa lànk ba tëdd suuf loolu laa bëgg si mbër waaye mbër moom bu ñëwee yàlla nga daw gi génn sa bopp te naan awul bi yàq sama làmb ak cinq avertissement naa nga am saam saako yi ko génnul kenn du la na taxaw dëggal boppam làmb ji nag moo ne ñu xaar ko une minute dañ ko xaar 30 bu ñëw ñu fekk ko fa jëlee ko fa billaahi Balla Gaye bu 2010 laa gisaat. moo ñëwaat. yàlla na yàlla dogal yàlla bu ñu cot jàpp yàlla bu ñu benn gàllankoor dal ba le premier janvier si la nga xam ne parce que damay wax dafa nu wax ju bari te dama am lu ma xam quoi Balla Gaye du moroom booy Niang erreur nag day am si xam nga yu bëree bari jaar na fi erreur yu bëri Boy Niang di am ay ndam yaakaar ne loolu mooy dëgg te du dëgg gis nga Boy Niang bi mu dajee teg ñi bëgg combat yi gérer seen combat ko muy muy Lac de Guiers dara ama neex bi muy bëre moom mu gérer combat amu fa dara Boy Niang bëggul kuy respecté sa combat moom ko bëgg ku am mel ne Sa la bëgg xëy na nga ñëw tal mu daal la du ngaaka ñun duñu ay bu ñu kenn di naxee ñu ngay toog di ko xaar te le premier billaay su puusoon ma aal ngeen ma daan Boy Niang <laughs> te maa koy xaar jël mu benn combat Boy Niang lay xaar Boy Niang ngay xaar bëréewu ma fii le premier janvier du ma jël combat du ma jël ndax damaa am combat damaa tal combat le premier bi su jàllee ma jël combat billaay walaay su ko Balla Gaye daanee muy trois défaites suñu ma joxee ma daan ko. ay jax sensibilisation bi lan ngay wax supporters yi ak ñi nga xam ne ñu ngi waajal ñëw ca làmb jax lan nga leen di wax. Balla Gaye moom lu ko waaye mën a wax ay supporters ay nante lañ ay tubaab lañ ay nit ñu civilisé lañ Balla Gaye supporters am du sàccuñ xeexuñ yëngaluñ du stade daal lañ mën moom boo ñaanal bu yeexee du am place doonte moo fa dëkk mais Balla Gaye ko yi ñoo koy supporter patron yeeg yaa ma gën a xam boo yi bëgg seen bopp yi ñoo ñëw du stade waa ji yëngal suuf ñoom yëngal si kaw mu daan ñu ñibbi moo tax maa ngi wax ñoom ñëpp ñu def ko ni ko daan defee teel a jug ñu teel a dem isaat xam ma boo ñaa it maa nga waa Pikine tamit xam ne làmb la rek làmb ji mën dafa gën a rëy Eumeu Sène Balla Gaye mën gën a rëy Modou Lo Balla Gaye combat la rek nañ ñëw fair play toog boo ñaa xam nañ ne yàgg naa ñu di leen rusloo mu ñëw daanu ñu lëng ko dum yóbbu mu ñu waajal Eumeu Sène fan si li may am mooy leen daal seen xel toog Baye Fall baa ngi liggéey am ma sax lu may noppalu am ma temps bu may perte fii si làmb naan parce que li ma toog dafa yàgg dégg nga sa waay ne Issa Pouye la bëgg mais man moom paa xaa Zoss paa su ma garaa la su ma mënee may na naa bëreeg Zoss ndax fi def xale yi tey yëpp moo leen daan non bëgg naa bëreeg moom ndax li mu fi def mais bëgguma bëreeg moom ngir toroxal ko wala humilier ko parce que kilifa la def na si làmb lu ne mais nag suñ ma dimbali woon te mais benn mag parce que sonn naa si làmb quoi yàgg naa fii xam nga di bëre di booy booy booy booy booy yëpp ma may leen chance soq ba mi maa ko may chance ndongoloo may chance daa may chance jacob dafa bari tellement que ni léegi foog ñu may ma tamit man ma génn ñu may ma chance am mooy sax ma bëree ko xam man mooy mag mais man ñëw bëri ñëpp daa man maa leen mag ay xale rek laay bëree léegi nag moo tax kaw grand bi du am chance ci combat du ci am chance ndax pare ma pour may chance daal pare ma pour may chance xam nga te wallaahi kii ak a neex daal kaw grand bi neexaa daal te nangoo ko jël te nga jógee ci 4 ans bëriwul moonin moonin moom na wàññi kaseem moo nin ñëw na ma ko ma waajal si premier janvier bi su ma paree jël ko daan ko. kontaan naa maa ngi gërëm ñi may jàppale ñëpp di gërëm sëñ Abdallah Diouf sama sëriñ baax boo xam ne damay ñaanal di ma ñaagal maa ngi koy gërëm bu baax a baax di gërëm képp ku may jàppale di gërëm sëñ Gédé Sylla di gërëm Sàmmandour Touba maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax di gërëm ñëpp di gërëm suma gaay yi may àndal yëpp Ibou Naata maa ngi koy gërëm sëñ Bakke Fall waa are Papa Gaye Fall amu seen fay ko su Ibou mii ama fayam ak abu ñoom ñaar ñëpp dama leen sonal laat gus-gusal maa ngi koy gërëm baax di gërëm waa salle bi yëpp tout su ma limee du mat màgget ñoom ñëpp maa leen di gërëm par Samba xam nga jigéen ñi ñoom Mame bind am ma seen fay ñoom aw kase ñëpp xam nga su ma limee du mat quoi di gërëm waa kefe gi waa Boy Diourbel yëpp maa leen di gërëm waa Mass Samb am ma seen fay Aliya Mass Samb seen fay di gërëm sama mbokk yëpp sama nijaay Mor Ndaw maa ngi koy gërëm bu baax a baax ak Ngunda Ndaw am ma fayam Mbaye Diop transfert maa ngi koy gërëm bu baax naa taxawaay bi jàppale bu baax a baax a baax sama combat bi nag géejuwaay benn autorité benn benn autorité bu ma jàppale amul loolu dinaa si wax mënuma su ngeen amee ay xawma lan élection yi ñëw ngeen sonal nit ñi ñuy dugg fu ne ñu dugg fa ndax yéen ñu am ay combat ndigal am grand combat du ma noom poti kii si géej waay gii ngeen ñëpp ngeen seetaan mais bu man tey naa leen pardonné mais su ñaaree dinaa ko digaale ak yéen parce que dañ leen fay teg pour ngeen jàppale nit ñi muy ñëpp tout tout bàyyi ma fi kenn ñëpp kenn jàppale mu benn billet lépp maa ko jënd sama xaalis ndax may booy ñu bëyee ji dafa metti fi ne laa am yow nday baat ma ne merci kese barki Seydina Mouhamad laa ci am félicitation ndigal ma ne merci te ne jàpp na yaa ngi àdduna rëcc bi ndax combat dafa metti nañ nañu ay mbër lañ te dañoo yor njaboot xam nga nañuy tegal jàppale ni bépp di jàppale mbër yëpp man néew ma fi di wax nag nii kii sax Modou tamit waxoon naa ko ban Tamba sama combat ak Zarko bi mu jaayee li ñu def du yoon man li may wax dama nekk digg bi bëri dem Blindé mënut a daan keneen day daan grand combat bu toll noonu ndigal toog 3 ans bëriwul li ma des si lamb bi kaay yàgg kaa yuuxu waruma daan te taxawuñ def taxaw seelu si ni ma daanee Zarko des si euh, développé si mais ma daan Zarko tag mu mel ne néew bu dee tag rek ñu fay coupé euh, Sénégal dem si leneen du yoon. Blindé ba mu daanee dañ siy def développé ñu wax si. kon man su ma daanee soko wane woon ndigal kat def na toog naa at nangam sang ñoo def na retour bu am solo nangam nangam développé parce que Bantamba réew mi ni koy seetaan te man dama si am cër bu baax a baax ndax ba a dugal ay mbër kon Modou Mbaye loolu yow part de gone lañ comme ñun dañuy wax dëgg man du nekk di fenn di làq-làqal damay wax dëgg nit ki li ma yaakaar mooy dëgg xam di gërëm nag DG Kandji promoteur maa ngi koy gërëm baax Kandji lépp moom la lépp di tuub bu baax a baax yooyu di nuyu di wax ne daal gone yi nañ na man maa sama liggéey di roq te ku ma ci jël dinaa la dóor bañ lay toggal xewar man maa la ko wax. ayca <laughs> ndigal la woon dama koy kontaanee bu baax gis nga affaire bi moom làmb la coow li mooy bari mais bu ñu paree moom ak Kaagur rek Mandiaye fa ak Jacob ak ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay mën nañ toog sa bokk benn bool bi ñu lekkee mais bu làmb jotee moom dañuy rayante ba mu saf saaf bu jeexee nag jeex sans violence lépp jàmm waaye fair play 100 pour cent ci biir kontaanee leen bu baax a baax Ndeye Mbacke la woon ji bi ci seen làmb beneen yoon ak beneen bër jaajëf. 3